maa ngi tudd euh, Bébé yi di jouer ci série bu bees bi nga xamante ne nii moo di alal alal nag euh, série bu bees tàq la bu ñu dajji ci paquet jóg pour euh, yee sénégalais yi am ay thèmes yu bees tàq ay thèmes yoo xamante ne di c'est des sujets d'actualité donc euh, mu nekk série boo xam ni sénégalais yi gëm naa ne dinañ si gis seen bopp bu baax a baax a baax parce que liñ ciy développé bari na te it am na solo. Euh, xam nga nag série bi moom dafa wuyu turam donc euh, dañu ne alal alal dafa ëmb lu bëri donc tey alal a tax décision bi ma jël metti parce que tey alal a tax ma nar a bàyyi sama bëgg-bëgg ngir faj leneen. parce que jàpp naa ne alal boobu mooy faj man li ma bëgg mu faju donc tey c'est pas facile ngay ànd ak nit depuis ngeen nekk xale ba léegi nga jékki-jékki bëgg a dugg ci koo xamante ne nii xamoo ko da nga war a dugg ci sëy boobu ndax alal pour yeneen pour sa intérêt quoi walla pour faj sa ay soxla ak yooyu noonu donc c'est une chose boo xamante ne nii vraiment c'est pas facile alal lekk ko mën alal defuñu ko pour. Euh, nit ñi ne diw laay seetaan diw laay seetaan dañ ko def pour nit yi seetaan ni am nañ ci njëriñ bi alal changé na ma ci côté bii alal yee ma ci côté bii loolu la ñu soxla tey. alal nag euh, mi ngi daw fi nga xamante ne nii moo di euh, RTS suñu chaîne nationale di daw tous les mardis et samedis après journal 20h.